Euh, daje bi ñu am fii tey ak liggéey bi nga xam ne biig ci guddi la am ci biir guddi gi am ci xaaji guddi la am du démb ci xaaji guddi gi am trois heures du matin man ci suba maa ngi woon sama biro di liggéey joge fa ñëw fii di di di saytu liggéey bi nga xam ne moom lañuy def fii ci tuyaux yi ñu teg fi euh, ci bés bi même wane na ne ah, euh, xëy na am na yoo xam ne nit ñi mën nañ koo def pour liñ ci jublu mooy xoxatal nit waaye koo xam ne kii da ngay liggéey pour sa di liggéey pour population yi euh, nekk ci gouvernement bi euh, defe naa ne kenn mënu laa xoxatal parce que li nga xam ne moo la tax a jóg yow bés bu jot soo yeewoo muy seet ndax yaa ngi def ay jéego pour ni ñi am ndox yaa ngi def ay jéego pour ni ñi am assainissement donc temps wu temps wu liggéey la ñu nekk. ci li nga xam ne moom la ñu président la république sant loolu la ñu taxaw euh, di wax rek ne effectivement vers trois heures du matin la ñu dégg ñetti tell tell euh, bi ñu génnee ñu gis que ne oto bi nekk ci buntu kër gi commencé na euh, lakk ñu ñu ñu fay ko ñu fay ko ak passants yi ak ñëpp ñëpp jàpp ci ak voisins yi ah léegi nag li nga xam ne moom lañu note mooy dégg nañu tell lakk am na bi lakk gi bare ay desitu euh, butéel moom lañ fa gis ay ay des des débris des tessons de de bouteilles qu'on a vu donc on a trois éléments ki permettent de penser que c'est un acte délibéré maintenant il ne faut pas faire des supputations et des conjectures on va laisser ñu bàyyi service yi nga xam ne ñoom ñoo koy toppatoo ñu xam fan la jógee nan la demee ak yëpp waaye daal li ñu yaakaar mooy ñi ko def daal am na luñ ci jublu woon ñu ciy profité nag di gërëm dëkkandoo yi ci taxawaay bi ñu taxaw pour euh, fay oto bi di gërëm aussi ministre de l'intérieur ak service sami police ak sapeur pompier yi ci taxawaay bi ñu ci taxaw di gërëm aussi sénégalais yi nga xam ne yëpp ñoo ñu yónnee ay message parce que jàq mën naa am te jàq warula am ndaxte ci réew la ñu nekk waaye soo gisee ñi yónnee message ñoom ñëpp ñaaw lu li am ah, wane euh, ni nga xam ne ñoom la ñuy moom la ñuy euh, dékkoo mbir mi ak ñun daf lay jox euh, yaakaar jox la espoir nga xam ne que ne am na ñoo xam ne ñi xëj na lu bon moo leen tax a jóg waaye li ëpp ci sénégalais yi yaakaar nañu suñu réew yaakaar nañu suñu institution yaakaar nañu suñu jeu démocratique maa ngi leen di gërëm di leen sant